asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu yéen mbokki internet yi ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy xibaar 221 point com tey ñu ñëw fi nga xamante ne moom mooy Ndorong Ocass ñëw euh, seet si fi nga xamante ne moom mooy Ada Gueye Baye Fall Ada Gueye Baye Fall tey ñu organiser li nga xamante ne moom mooy cant gu rëy gii nii nekk fii nii muy safar tey jii ñu ñëw fekk soxna yu yaañ yi macha allah ñu fas yéene dalal soxna si nii laaj ko mu wax ñu turam ak santam soxna si ziar nañ la. delloo ziar bu wér a wér maa ngi tudd Sagar Niang maa ngi dëkk fii Ndorong Okas waaw. yow lan nga ci bis bi. man bis bi mën naa ne lépp laa parce sama mag la. ñu dëkk depuis bu ñu ñëwee fii ba tey ñoo dëkk vraiment mu nekk nit ku baax ñu koy def yàgg na ren nekk dixième édition bi macha allah. ah macha allah yéen euh, taxawaay bi parce que gis nañu jamono ji àdduna bi yëpp ñu ngi naan safar safar safar mën nga ñu wax lan mooy safar. waaw safar moom dañ daan def ne bu màggal gi desee 18 jours rek li si des dañ koy liggéeyal sëñ bi daal ba keroog màggal gi di bernde ba keroog ba keroog 18 yi di mag 18e jour doon bisu safar. foog naan loolu mooy safar bisu màggal gi. macha allah soxna si mais bëgg nañu xam soxna si yow yow yaay kan. Ah, man maay Awa Fall di rakk si Ada Gueye Baye Fall wax dëgg fa yàlla mu nekk suñ mag ju baax ju bëri jàmm yoo xam ne lu mu wootee moom ñun ñëpp a siy ñëw ndax ku nekk am na fu mu la teg. aada daal kenn la moom yaa na ko yàlla fay ak suñ Touba tamit ndax moo waral liggéey bi yëpp waaw. waaw bëggoon naa leen a laaj en tant que ngeen nekk ay ndaw waaye nekk ay jigéen te gis nañu sëñ Muntaxa sëñ mu tedd bi daal di am lu mu ndigal lu mu joxe ci wàllu habillement yi nga xamante ne jigéen ñi ñu ngi koy sol ci biir dëkk bu sell ba yéen lan ngeen ci xam. waa ñu jëfe ndigal rek ndax ñun ñëpp màggal gi moo ñu fa yóbbu nekkul solu nekkul dara mais ñi ñi dañuy dem màggal di sol yoo xam ne sëñ bi du si kontaan tamit ñu war koo éviter daal. ñun daal moom incha dinañ jëfe li sëñ bi wax jigéen ñi tamit ñu maytu lu sëñ bi tere. waa kenn jërëjëf soxna yi. ñoo lay siyaar bu baax wala di fay. di wax ne présenté wul nga wax ñu noo tudd ak lan nga yit ci bis bi. waaw ñun maa ngi tudd eh, eh, Cheikh Ndiaye Baye Fall waaw digga maam lii bis bi rafet na bi waa aadagee Baye Fall moo aye waaw bis bi daal amul lenn di rafetlu rek ndax bis bi sant Sëriñ Tuubaa mooy sant Cheikh te sant seen Cheikh Ibra mooy sant yàlla te daal dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax te baax fa di koy ñaanal rek si kaw sa moom seen baam jërëjëf kontaan bu naan café de wax ñu noo tudd ak noo sant maa ngi tudd Adama Mbuub yow lan nga ci bis bi maanaam Adama sama doomu nijaay la tubaar fakal la di def safaram gi at bu ne muy rey gileem di rey xàbboon dara du fi jeex ay mbokki boppam ay mbokki dëkkaale yu yàgg yu yaayam ak papaam kenn du ko wolli aada dafa baax macha allah marché central kenn du des famille Ndiaween kenn du des ndax aada aada ñëpp la aada ñëpp la am moo tax ñu ni ci bis bi nag la ci la jëndal bis bi ci silib lañ ci di ko ñaanal yàlla nag ko yàlla yokk ba mu yëg ko mu yàgg koy def ci baax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa toog ba am soxna su baax boo xam ne day mel ni yaayam yàlla na ximpee àjjanay fi daw si ah daal ñu ngi ko ñaanal ci kaw ci kanam ci lu baax jërëjëf yaay booy salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu papa ginnaaw bañ la nuyoo ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax di wax ñu nga présenté wax ñu yow lan nga ci bisu aada gay Baye Fall bii nii bismillah rahmaan rahim barke borom tuuba do Cheikh Rafal waaw soxna si ñu ngi ziar bu baax di sant sëñ Touba bi ñu mayee ñu mën a fekk war bis bi yàlla nañ dem màggal ci jàmm del ci jàmm bàyyi fa jàmm fekk fi jàmm barke borom Touba wala Cheikh Rafal saa si Ada moom bis bi moom at mu mu taxawal ko man maa ko yore ki daara ji daara Hizbut-Lah mooy ñii jàng sama gannaaw man maay seen jëwrin liggéey bi maa ngi ko jot ay at yu bari ay 1980 li ma ko Cheikh Abdou Lahad Mbacké dénkoon booba ñii sax ñu bari judduwul ba ñu màgg ba gis nga li ñu taxawee ni ñu taxawee ko jàmbaar yoo xam ne seen chaise mi ngi fii kër sëñ Maalum Jaw Kawlax man Mor Talla Fall laa tudd daara ji nekk fii ci cité millionnaire lañ nekk waaye seen aada daa jàpp liggéey sëñ Tuubaa bi ba tudd ci Baye Fall maanaam sëñ Ada Baye Fall lañ koy wooyee ci pastéefam ak liggéeyam sëñ Tuubaa ak nangoom ak amuk taalibeem at mu jot ñu def nii daje fii mu jël ay teraanga yu am solo def ko ci safar bi nga xam ne mooy suñu indépendance ñun murit ndax bu toon le 18 septembre boobu Sénégal du mel ni mu mel tey kon nag moom loolu la xam ba tax balaa màggali moom. dana def sant sëñ tubaa fii dajale fi mbokk taalibe yi berndeel leen ba kuréel bi jàng fi ay xasida sante ko sëñ Touba bala ñoo dem ci bis bi rakkam bu mbokkal ndey ak baay sëñ Ibrahima Gueye ci kuréel bi la bokk daa ne Touba xamaa ne ay xat-xat ak ay ay ay yu la rek kon loolu bàyyam bee toog sëñ Fallou Gueye taalibe sëñ Touba dama tuddee ko sëñ Fallou mooy jur xale yi kon nag bis bi lépp génnul sëñ Touba ak xaside yi rek loolu lañ ci am kon ñu ngi koy ñaanal sëñ Touba bi nga xam ne moo tax muy def yàlla na ko nangul jëf ji yéen yi xam ne yéen fi ñëw itam di taxaw bis bi sans borom yokku leen ba ngeen yëg ko barke xasaay di barke weeru sëñ tubaa wii sëñ Adama moom loolu lay mën a wax ci moom ndax nit boo dee ma tuddee la Baye Fall sës nga waaw ndax Baye Fall moo dul soppiku mukk Baye Fall moo dul soppiku waaye lu loolu da nga mas ko ndax ndax euh, sëñ Tuubaa daana wax ne lu yàqoo sama kër Serigne Fall mën na koo defar waaye lu yàqoo kër Serigne Fall de man sëñ Tuubaa mënatuma koo defar kon nag bu ne ba ci dookee Baye Fall kon mel na liggéey bi mu doon sàkku sa borom dimbalil ne ko ci te yàlla na jëm kanam ñu fekk ko ay déwén yu bëree bëree bëri barke borom Tuubaa waa papa bëggoon nañu xam euh, lii euh, ndax li ngeen di def nii ci safar gi nii du yàq dara màggal gi waaw lii moom avant premier la rek màggal gi moom mooy bis bi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa safar daal mi ngi mel ni ko misaal mi ngi mel ne président de république bu jëm si Kaolack jóge Dakar protocole yi jiitu ak garde corps yeeg ak conseillers yeeg ñooy ñëkk jiitu si balaa président di génn loolu mooy safar dañuy xàllal dañuy xàllal màggal gi mooy lii. Wah ya dara dara dara dara ak maanaam li nga xam def du yàq dara suñ Tuubaa xéwale yéen ñëpp xéwale bi yàqu ci dara barke borom Tuubaa. comme niñ ko gisee gis nga xasiida Touba allah xol ngi bëggoon nañu xam euh, Touba euh, ak xasiida yi. waaw Touba yi sama ndax biñ ko laajee julli géej gi ndax karaama la def nañ loolu de karaama bañ a sama ndigal borom moo tax ma doon ko def waaye sëñ tubaa dafa ne karamatu xattu yët yi la wax ci xaside yi boo demee da ko ci fekk sama minum loxo mooy sama karaama kon xaside yi ku koy jàng nee nañ boo ci mokkalee wenn xasaayit yombal xiyam boo faatoo moo lay wéttali ci biir bàmmeel ba kër bar sàq di bi jox jox kon di ko jàng di ko di ko diko ko laabal jàpp sokkoon jàpp ñii loolu laa leen digal bala ken la xasida yi da ngay jàpp bala nga jang da ngay ñaan sa soxla soko jang jàng xasida yi sëñ Amsatu Mbàkke mu maam Cerno Birahim moo ma ko waxoon kon xasida yi loy dak mi ngi xasida yi loy xecc mi ngi xasida yi niko Cheikh muntaka waxe yalla na fi yàgg te wér te xasida yi rek liggéey xasida yi rek ba bërki démb yaa ngi Touba journée xasida bi moom xam ngeen ko journée xasida bi gis nga dama fa def ak li bi mel ak ak mbas mi ni mu wàccee loolu xasida moo ko mën loolu daal moom mooy gën a ndaw ci xasaay sëñ Touba yi nga xam ne da koo dafa fonk yonent bi waaw daf ne salaatu sitta bi max yi sitta taati yi baata yi juróom benn weer yi dama koy julli ci yonent bi yeneen juróom yi weer juróom benn weer yi ma koy tagg yonent bi kon noonu la def xaside yi 12 mois mu xaaj ko ñaari xaaj 6 mois 6 mois kon xaside yi amuñu koo gis mu baax Sénégal fi mu toll nii xaside moo la boo koy jàng te demoo daara sax da baax boo koy jàng nii te demoo daara demoo fenn jàng ci xaside suñu tubaay yi la yar daan la tërbiya da nga xam sa ndey xam sa baay ni nga koy toppee xam na toppee sa mag wala sa wala sa rakk sax xaside yi moo mën loolu moo tax ñuy def nii. di jàng xasida sëñ Tuubaa nga xam ne mbooloom sëñ Tuubaa fu ñu dem alxuraan ak xasida rek moo fay jub loolu la amul ba jërëjëf euh, sëñ Fall yow yaay jëwriñu euh, daara xisbulaay bi ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax di am cant ak ngërëm ci dalal la fii nga xamante ne mooy suñu première édition euh, yóbbalu màggal gi ci xibaar 221 point com sant nañ la gërëm nañ la salaamaaleykum wa rahmatullah comme niñ koy euh, defee depuis boobu ba léegi ñu ngi ak ki nga xamante ne moom moo waral bis coow lu coow li moom la muy Baye Ada Gueye ñu gën koo xam ci Ada Gueye Baye Fall Ada ñu bàyyi la nga daal di nuyoog euh, mbokki internet xibaar 221 point com. asalaamaaleykum waa xibaar 221 maa leen di ziar yéen ñëpp ku ci nekk sa tur sa sant di leen jox seen wàccuwaay di wax ne kontaan naa lool ci teew bi ngeen teew fii wax dëgg yàlla xol sedd na lool man la Ada Gueye Baye nag nekk taalibi sëñ waaw di ko di ko liggéeyal daal te bëgg sax ji ko liggéeyal ba keroog may faatu incha allah. waaw Ada Gueye Baye Fall nañu xam parce que bu màggal teroo ñu ne 18 safar euh, dëkk bi yëpp ngi yëngu ñëpp a ngi tànt naan safar bëgg nañu xam lan mooy safar. waaw safar weeru mbégte la rek boo xam ne sëñ Touba moom ba muy dem ci géej gi ba ci géej gi. ba mu ba muy dem ci géej gi la leen sant leen ma yàlla bis bis bu dese dese te neen na ngeen ma ci sant suñu borom. moo tax weer wi du ñëwee commencement premier safar ba 18 safar dañ koy màggal waaw ba 18 safar ba jouru màggal ñun dañ koy màggal luñ teggi suñu tànk ndax li sëñ Tuubaa wax sant leen ma yàlla ndax la laañ zakartum wala azidanakum waaw mooy sant leen ma yàlla daal te ku sant tamit ñu dolli la ñun nag 2011 lañ commencé safar gi ci mburu ak caaf waaw yàlla def ñu nekkoon ay tuut tànk doon yëngu fii ci terrain bi di di di fubal waaw léegi bu ñu fubalee ba ñëw rek ay timis rek ma toog fekk maire bi ñu jëndal kër mi ngi jaay ay caaf yooyu ma a ko jaay ma caaf damay safar quoi mu daal may jaay caaf njëgu 1000 francs fekk sama yaay ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm nit nit ni daaw la génn àdduna ba ñu waayal màggal bi yàlla ko suñu borom xaari àjjana ndax liggéey bi yëpp moom la waroon jaay café ci kër gi. léegi bu mu jaayee café gi kër gi ma ne ko jaay ma café gi jaay ma café gi yëpp ndax damay safar tey quoi waaw léegi ci laa safar gi commencé c'était en 2011 am na benn borom biti bu nekkoon suñ côté suñ côté bi fii dama ñëw jox ko café gi ak caaf ne ko njóogul tudd njóog fay waaw moo wax dëgg yàlla moom bokk na ci ñi ma gën a ci loolu mu ko joxee kafe gi ak caaf bi ne ko damay safar moom boo ko gëmee chaque année nga def te day gën a yokk waaw ca deuxième année ba laa ko def nag def ci dem marché géej ndugg ay ceebu jaga jënd samay xaal deuxième année bi noonu la noonu laa démarré troisième année bi ma def 15 ganaar muy dem di dem quatrième année bi ma am 50 ganaar ak xar noonu la demee ba nag yeeg xéwale yëpp di wàcc nii ba dixième année bi ren mu demee nii. macha allah jërëjëf comme ni ko waxee dixième édition bi moo nekk nii nii fi nga ko tàmbalee ba ni nga ko liiwee mooy wane ne yow daal sëñ bi rek ka la dara lu dul sëñ bi daal ñoru la ba tax na bëggoon nañu xam ndax eh, ni ngeen eh, def ci safar gi nii ndax du yàq lenn ak li ngeen def ci màggal gi daal. de li ñuy def ci safar gi moom du yàq leen ndax ak li ñuy def ci màggal ndax safar gi man maa ko man maa ko tàmbali waaye suñ suñ tubaab dane ma sama bis bi moom tàmbali leen rek man maa yegali man doo xoolee ma marchand ambulant laa pousse pousse laa yoon ci marché bi di jaay doo ma gisee da nga yaakaar ne. boromi million la wala boromi milliard la waaye nag taw feex moom boo ko amee rek yow yaaw yaa raw boromi milliard ak man doo gisee ci marché bi ma dara omoog kaaneeg kuus ak lépp laay jaay xewu ma bénéfice ndax sëñ Tuubaa moo ne bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaat liggéey jaamu yàlla joxe addiya kon nag liggéey moom dañ ciy nekk rek jaamu yàlla gi tamit dañ ci sax daak joxe addiya moom du dañ ci ñun ndax ci ñun la bokk moo tax ñun xeebuñ dara suñu lépp nag nit doomu adama yi ñu wër la doomu adama yi la ndax ñom lépp ñom la wax dëgg yàlla lépp ñom la awma seen pay ndax safar gi man na ne li dem ci budget fi nu ni do xolal li dem ci budget xawmu musuma ko calculer musuma musuma jëm xam bilay bi ndax ab talib doxé nonu waye xam na ne mom bari na bari go xamanteni bu doon samay doole boobu kessela man na wax ne munu muko waye nak doomu adama yi fu nekk limay may seen xewal ndax bis bi dox na bis bo xamanteni dafa kawe lool wal dëgg yàlla kawe na lool ba ci nekk am ci doomu aadama yoo xam ne a gis ñi ñi ngi Amérique ñi ñi ngi ñi ngi Italie Facebook lañ gis affaire mbir rek liggéey bi di dox di avance chaque année muy avance chaque année yónnee seen i xéwal te wallaahi asi mosuma gis seen jëmm yi mosuma a xam waaw liggéey bi nag moom moo demee noonu liggéey Sëñ Tuubaa moom boo tàmbalee te gëm ko rek am ji ak pas-pas rek suñu borom dalay dalay dalay dalay dalay dalay jàppale noonu la demee wax dëgg yàlla xéwal li fi nekk yëpp gaay la man nag maa maa lépp moom mbooloo mi la ak moo ko taalibe yeeg waaw askan mi daal aw ma seen pay daal sëñ tuwaay bi am pay yàlla leen payal boppam barke seen xam sant naa leen bu baax nag waa waa koñ bi waa ndorong na suñ waa koñ bii aw ma seen pay waa kër maalum okaas fii aw ma seen pay wax dëgg yàlla ku lim nag doo matal da nga da doo jum waaye da nga da nga dul matal waa biir waa biir réew bitim réew tamit bàyyiwuma leen fenn wax dëgg yàlla te duma la wonoon sama compte web bi li ci nekk ci doomu dërëm ñoom ñoo koy def barki Cheikh Ibra Fall lamp billaahi te musuma je am na ñoo xam ne musuma leen a gis barke Seex kon loolu Sëñ Tuubaa la moom mooy wane boppam daal ndax daa mbir yoo xam du koy du koy def rek daa day tànn kenn na ko jiite ko doo amee pas-pas rek da nga koy daal di mottali pas-pas googu nag ñu la ñuy doxee du alal du dara du puukarewu du dara wax dëgg yàlla ndax instant bi moom ñun tolluñu fenn aguñu fen demuñu fenn waaw ay marchands ambulants yu taaba taaba rek nekk ay taalibe Sëñ Tuubaa yu gëm lool te gëm di ko liggéeyal fu ñu toll daal. te nuñ sañoon dañ koy liggéeyal ba keroog ñuy xëy faatu ndax ñun lu dul Sëñ Tuubaa ndax lim daj ci géej gi ak lim daj ci bureau bee lam daj ci pour bee lam daj ci àll bi maa yomba karambasa fu ne ñu yóbbu ko fa wax dëgg yàlla sëñ Tuubaa amuñ payam kon ñun du màggal jotee ñu daal di dese weccat rek lii bu ko dese lii du dara lii du dara lii ay këyit la rek doomu aadama moo ko ëpp man nit ñi. waaw comme niñ ko gisee émotion bi moo ko jàpp. ndax euh, lépp rek yoonu mouridisme ba tax na ñu ngi am euh, contentement bu baax a baax a baax a baax